le camarade Demba Dione suñu sœur Fatima ak suñu maman yi liñ fi jot a wax daanaka résumé nañ li nga xam ne mooy soloy jotaay bi ndax jotaay bi dara waralu ko lu mooy waxat suñu maman yi nga xam ne ñoo ñu uyu si suñu papa yi nga xam ne ñoo ñu uyu si lan mooy sabab ñu war a jox président Macky Sall deuxième mandat bi mu ñu laaj. ni ko sama grand papis waxee nan nañu lool dañoo war a ñaan deuxième je pense que loolu mooy li ñu fi dajee balaa kàddu yi yëpp doon jib di ci jiitu woon mooy nuyu ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi muy sunu yaay yi nga xam ne wax dëgg fa yàlla li nga gis mu weex ni yëpp ak ñeneen ñëpp ñoom ñoo ko ñoo ko fësalee nii te lii buñ ko gisee duñu bett ndax seen teewaay bii nii moo sabab ñun ñii ñu gis ñu tey ñu toog ci jotaay bii di di impliqué wu ci loo xam ne politique lañ ko tuddee ndax ñun wax dëgg fa yàlla dund nañ ba am at yi ñu am mosuñu ko foyee mosuñu ci dugg waaye nag sunu maman suñ ko xoolee ku ci nekk ci ñun ñun ñi ñëpp ci dugg muy ñoom gone yi ñoom moor ak demit demit ñoom ñëpp ku ci ne soo ko xoolee dafa mel ni sa yaay nga gis ndax dañ ko gis mu ànd ak sunu yaay yi ñu nekk ci cité bi lépp loo xam ne am na njëriñ ci bi rek suñu yaay yi ñoo ko fi def kenn fekku leen si xanaa kay ñu dem ba mu sotti borom ñoo fekk am ñu ko bëgg a boromoo ñoo fekk leen si wala ñoo fekk leen dimbali leen loolu ñu gis ko nekk ay xale yu ndaw gis si cité bu ñu fi dëkk bu ñu fi dëkk si daanaka infrastructure dara amu fi bâtiment yi rek moo fi newoon maire yi ci seen sens de l'initiative ci seen góorgóorlu ci seen organisation ñuy dajale seen i dërëm seen i dërëm seen i dërëm ba def lii yëpp ñu def ci cité bi seen organisation tollu nii kooku nag bu fekkee moom moo nekk à la tête de ci góor ci góorgóorlu jàppalanteeg ñoom ci xalanteeg ñoom bu sosee lu mel nii ñëw xool ñu ñun ku ci nekk mu tàdd la xool la ooloo la ne yéen samay doom ngeen bëgg naa ngeen ñëw jàppale ma ci liggéey bi je pense que kooku sans réfléchir sax dañuy gëm mu ñëw foncer ci jàppalanteeg moom. ay la yéwén nag ba nga xam ne ci lim ñuy oo neex naa uyu ndax mooy jàppale président Macky Sall. ndax nag ñun nag Sénégal lañ dëkk nag xel lañ yor di ñëpp xel moom mënta weesu xel ay bët lañ yor di gis lépp lu ne ci dëkk bi suñuy at lu muy tuuti tuuti am na loo xam ne fekk nañ ko fi gis nañ la muy liggéey te doy nañu bu ñu doyuloo nit am nañ mat goo xam ne danañ wax suñu yaay ne ko ah bëgg nañ la lool jox nañ la cër lool waaye nag li ñu gis doyuñu waaye nag loolu daluñu ci jàppale président la république du ma dellu soit ci réalisation yi le camarade Demba Dione wax na ko d'une façon poétique sunu si sa Fatimata nga xam ne ku ne xam na ko ci monde politique bi ak seen éloquence bi ñu àndal wax nañ ko mu leer nañ waaye ñun suñuy wax ni ko taasali waxee keroog bi ñu président recevoir benn kàddu googu moom lañ fa wax ñun ñëpp ñun président jotewuñ ko xamuñu ko fréquenté wuñ ko waaye nag taana xam nañ ko te mu ngi dëkk ak ñun dëkk boo xam ne dëkk mucc ayib la politique yooyu président di définir de façon macro nga xam ne ñëpp la daj Sénégal moom mu ngi koy définir dans sa plus euh, simple expression du ñu ko won ci ay jëf ci ay wax ci ay conseil kon nag moom la xam moom la ñu joxe moom la ñu dëkkal kon nag moom duñ ko gis mu ne fi di yëngu ci lenn ñu dem di wàllu yaani keneen xel xalaatu ko sax ku ko xalaat it foog naa xalaat nga lu xel mënta nangu xalaat nga loo xam ne mënul nekk nit ñi nag bu ñuy àndee dañuy ànd ànd boo xam ne moom de moom la ànd ak moom ànd boo xam ne dañoo nawlawante ànd boo xam ne ànd respect la lu muy doon doon suñu yaay ku nawlawante ak ñun la lu ñuy doon doon ay ndaw ku ñuy laaj suñuy xalaat la ku doole suñu xalaat ñun nag bu ñu nekkee ay ndaw bëgg a jëm fu sori il faut ñu am luñ gëm ci bopp yi bañ a bañ a topp ñi nga xam ne ngelaw gu ñëw rek ëf leen loolu nag da nga foog ña ngay ji. ca yow lañ soxla waaye yow la ñuy utiliser ndax ñii nga xam ne ñu ngay politique boo xam ne judooguloo nga topp seen ginnaaw foog ne tey boo àndee kii suba nga ànd kële kële nga ànd da nga waaye doo gaaw jëriñu ñun liñ ko toppee nekkul lu ñu def suñu poche ndax loolu tax ñu jóg ci waaye gëm-gëm la ndax euh, bëgg nañ tamit ëllëg ci biir ndax fii bu ñu fiy dugg bu ñu fiy toxuti foog naa paay ak maire ñoom ñëpp ils avaient la trentaine la quarantaine léegi bu ñu demee ba nga xam ne ñoom ñëpp ay retraité lañ ay màggal lañ mën naa ko waxee noonu ñun ay ndaw lañ relève bi ñun ñoo ko war a continuer te nag dama dégg sama sëriñ daan wax Cheikh Ibrahima naan ñett doom moo am doom ji yées neexut ci dégg neexut ci baayam mooy doom ja xam dafa fekk baayam doon def dara mu def la ko gën a yées doom ju baax mooy doom ja fekk la baayam doon def mu di ko def kooku neex na ci dégg neex na eh, baayam dégg ko waaye am na doom ja nag moom Baye Niass moo koy wax mu ne doom jooju mooy doom ju fekk la baayam doon def moo sof ko yokk ko buñ ne la yaa gën sa baay neexut ci dégg waaye neex na baayam ñun nag loolu ci lañ bëgg a dox ci tànk yooyu lañ bëgg a nekk ndax suñu waajur yi wàcc gàcce ngalaam la ngeen waroon def def ngeen ko wàccee ngeen ak ñun kon nag ñun nag suñu sens engagement ak maire arab yi boo la ko gisee loolu rek moo ko saf bëgg a tegu ci tànk yooyu ngeen ñu tegoon bëgg a bëgg a tëral continuité boobu noonu ci kaw jàppale président de la république ndax gëm nañ ne président bu jëlee deuxième mandat njëriñ la ci Sénégal njëriñ la ci Géejawaay njëriñ la ci biir ñeneen kon nag mu gudd mu gàtt loolu mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko ci sànni nga xam ne sama mbokk yi ma nekk di yëngat ci MKAS loolu lañ ma yóbbante woon bu amee lu ci dëng ñu ngi jéggalu bu fekkee jaar yoon nga xam ne noonu lañ ko bëggee